mbokk yi ñuy seetaan ci seen site 28 pro ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen euh, gan gi nga xam ne moom la ñuy invité rubrique bi nga xam ne moom la ñuy muy dippee muy édition spéciale découverte xam ngeen ne jëloon nañ bër ay fan ak wala bokk weer lu ko tegal euh, xew-xew bu ku nekk xam na ko euh, bërëbu liggéeykaay ba amoon benn jafe-jafe maanaam su ndogal maanaam borom fekk ñu fa muy 28 place ba. waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu amaatee eh, maanaam kàttan ak wér ba mën a ñëw ànd ak yéen ci seen émission bi nga xam ne ni moom mooy eh, seen émission préférée eh, ci seen site 28 pro mbokk yi nag sunu gan gan gu am solo la ñu dalal tey di Serigne Djily Mbacké Abdoul Fatah moom moo nekk sunu gan tey ci seen émission découverte di entretien exclusive boo xam ne nii accordé nañu ko. ñu ngi koy bàyyi rek mu nuyoog euh, mbokk yi ñuy seetaan ci 28 pro sëñ bi ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum. waaw jërëjëf Sidi Mokhtar maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem téléspectateur téléspectatrice su seen bii nga xamante ni bii mooy pro 28 di leen wax dal leen jàmm fii ci Ndindi jërëjëf. Euh, sëriñ bi euh, Ndindi moom fii nga nekk di fi liggéeyal sama am waaye yaa ngi am beneen tànk tamit Ndakaaru. ak tamit léeg-léeg nga génn euh, ci jaar-jaar euh, xam na ni jàng mi moom fii nga ko tàmbalee Touba mais est-ce que mën nga ñu cee dikkaatal. waaw jërëjëf sëñ Sidi kon euh, ni nga ko waxee rek ñun yàlla dogal na ñu ngi diggante nawet li tubaab di wax nawet diggante Ndakaaru ak Touba ak léeg-léeg bitim réew ñun nag fii lañuy jàngee alxuraanul karim ci ku ñuy wax sëriñ Cheikh Kanji sëriñ Cheikh Kanji nag waajuram moom la. Euh, waajuram di sëñ Babacar Kañ moom la sëriñ Daam Abdourahmane Lo dénkoon fas woowu nga xam ne mooy fas sëñ Tuubaa ñu wax ñu koy wax ngelamu looloo waral euh, ba euh, ni ni ma fa jógee waajuram bu jigéen moo moo doon toppatoo barab ba ba ñoom seen famille ñoo yore barab bu ngelamu fii ci Ndaamaatu fa laa jàng alxuraan bind fa ñaari kaamil jóge fa nag jàng xam-xam ci ay barab yu yu wuute kii ma njëkk a jàng xam-xam nag ku ñu wax sëñ Aliou Gassama la. yenn yi biñ ci jógee nag jóge nañ dem nañ ci ku mel ne suñ maam suñu fàllu jàngal nañu ak yeneen i yeneen i barab yeneen i barab Ndakaaru it bu mu fi jógee jàng nañ fa ay barab yu yu wuute ñaareel bayit nasaraan it am na lu ñu ciy jàngit ci ci école bi nga xam ne moo nekkoon école Serigne Cheikh Gueye bi nekk Daaru Xudoos ci résumé daal foofu lañ ci teg jaaroon bi ginnaaw bi jàng génn nañ bitim réew it fu mel ne Italie demoon fa jàng langue wa dem nañ fa ab bu yàgg ci résumé daal foofu foofu daal mooy. waaw euh, ñu dikkaat nag ci euh, daara ji nga xam ne njàngum alxuraan bi euh, def nga ko luñ ci mën a nettali ci loo xam ne maanaam ay souvenir yu moment yu difficile ci biir daara bi parce que ku nekk xam na ne daara moom ku fay dem da nga xam ne maanaam du yomb da ngaa wuti xam ndax dana la jàngal waaye tamit dana am loo xam ne di nga ko daj luñ ci mën a nettali. waaw xam nga daaray alxuraan du njëkk ji ak daaray alxuraan yi léegi bokkuñu boo xoolee ñun suñu jamono bi ñu daan jàng daanaka mën naa ne booba internat amul année année quatre-vingt yooyu euh, mu nekkoon nag ci jamono yoo xam ne jamono yu jafe la woon ndax ku xam ne jamono yooyu sa jamono ji dafa jafe rawatina nag daara te bu njëkk booba jàng di fayu ko weer ci daal alxuraan it amutoon suñu jamono amutoon léegi nag euh, ni ñu daan def mooy sëriñ bi nga xam ne moo daan jàngale donga yi ñoo daan yelwaan lim daan dunde yelwaanum léegi ak mu njëkkit bokkut parce que bu njëkk nit ñi dañ daan xëy donga yi bu ñu xëyee ba jàng euh, ba jàng fajar njël ba noppi bu nelawee ba ay huit heures dañuy dem dañuy huit dañuy dem yalwaani xam nga bu njëkk yalwaan li ñu daan sarax moom diggante ay pepp ak dugub ak yooyu xeet yooyu lañ daan sarax nit ñi daanaka nit la néew la ñu daan sarax xaalis bu ko defee yooyu nag ku nekk indi yooyu daanaka sëriñ bi ci moom la daan jël di ci jaay di ci am lu ñuy jënde yu sesuwaay ceeb bi moom la daan dunde añ bu jotee donge yi dañ ko ne day dem yalwaani bu ñëwee dajale ko ci bool yi teg ñëpp tiim lekk Eh, reer it noonu dong yi dañ daan yelwaani reer waaye daal li ñu daan xëy di yelwaan suba moom la sëriñ bi daan jël te loolu la daan jël di ko dund di ko di dund ak boo njabootam booba booba booba léegi nag différence am na parce que bu njëkk daara dañ daa wax dañ la daan jàngal ba pare boole kook tarbiya la dañ lay tarbiya mën naa ne tarxiya la mën naa la tasfiya ñett yooyu yëpp mooy daje ci ci daara moo waroon boo xoolee ñi nekkoon ci daara yu njëkk yi ak génération yi ma ak ci daara yi mënuñu yoon benn parce que jaar benn dañ lay jàngal lan mooy ak tubranki dañ lay jàngal lan mooy ay mettit dañ lay jàngal lan mooy ak muñ dañ lay jàngal lan mooy mooy mooy lan mooy ak woyof yooyu yëpp nag dañ dañ ko daan mooñaale ci biir njàngam alxuraan bi yooyu yëpp nag dana tax ba képp koo xam ne jógee nga woon ca daar yu mel noonu ci jamono yo da ngay daal nekk mën naa ne da nekk nit koo xam ne nit ku exemple yow euh, yalwaan nga waaw ñun nag li ñu dimbale woon mooy suñu waajur dafa waxoon ne ñun bu ñuy yelwaani da dafa dañoo booleeloo koo xam ne moo ñu daan toggal añ moo ñu daan toggal reer waaye teewul nag rythme bi nga xamante ni moom la donga yi daan jaar rythme boobu yëpp dañ ko daan def waaye yàlla dimbale na ñun moom suñu waajur dafa waxoon ne bu ñu yelwaani wutoon koo xam ne moo ñu daan toggal añ bi moo ñu daan toggal reer waaye teewul nag la des ñoo dong yi ñoo ko daan bokkoon ñoo daan bokk fu ñu daan tëdd ñoo bokkoon leen condition yu ñu doon nekk ñoo bokkoon ci traitement même traitement daal amuñu ko woon par rapport ak yeneen ñi nga xamante ñoom lañ fekkoon. ci lu rek ci lu ci lu weesu ci ay jamono euh, diggante sëriñ bi ak ndongo li nga xam ne moom moo waroon mbiri jéng euh, mos diir bi nga nekkoon ci daara euh, mos nga gis li nu mel bu fekkente ni amoon na noon noo ko dundee woon wala bu fekkente ne amut ndax dañ ko daan dégg rek. waaw amoon na jamono yooyu moom daanaka amul benn daara joo xamante ne bii jéng amu fa. ah jéngit dafa am ay ay ay ay gis ngeen ne coow yi ci amoon fan yee damay wax ne képp koo xam ne yaa ngi doon coow ci mbirum jéngu rek parce que xamuloo lan mooy daara wala mosoo jaay ci daara daara doo masaa gis ab daanañ jéng jéng ñin ko daan def mosuñ koo def kenn ay waajuram ànduñ ci ñin ko daan def mooy xale yi nga xam ne dañoo tëwoon fu ñu leen indi seen waajur bëggal leen ñu jàng ñu yar leen waaye fu ñu leen indee ñu daw bu te dañ leen wari sonn ca lool pour doon leen a gis léegi nag lay tax ñu toog ba seen xel dellusiwaat bokk na ci jéng gi ñu leen daan def bu ñu la ko defee ab diir ba bàyyi la dana tax nga ragal ne boo demaatee boo ñëwaatee ñu jég la dana tax daa nga ragal ba ba d'habitude kuñ ko mës a def bu ñu la bàyyee doo doo ko defati lool nag da daan am ay résistants parce que li tax na pédagogie la boo xamante ne bii ñi daan jàngale alxuraan ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko daan def te booba it booba ba tey nag mosuñ cooy gis mukk ñu def ko koo xamante ne bii maanaam du ay ngëneel du ay ay njariñ du du du du du nit koo xamante ne bii maanaam tekk dara tey am xam nga dégg nga ñuy wax naan jëng humiliation la ak dana tax xale bi yëpp gelwaan alors que yooyu yëpp amul parce que alxuraan suñu boobu dafa barkeel lépp te ñi nga xam ne nit yi daara yi rek da doon nekkoon ñoo xamante ni bii ay dañ daan am ak may yàlla ndax euh, ni ni ko ni ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan rek ne képp koo xamante xayrukum man ta'allama alxuraan wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale loolu moo waraloon bu demee bay gis ne ñaar dañ la daan jëng benn dañ la daan dóor dañ la daan door yi yu metti te damay wax ne fi nii tey jii traitement yi nga xamante ne diggante sëriñ bi ak donga yi tey na ñuy dundee bu fekkonte bi jël nañ ko di ko télévis di ko euh, film di ko tas ci ci ci internet bi wala ci réseaux wala ci ci ci télévision yi àdduna tukki te yooyu yëpp naka jëkk képp koo xamante ni bi tey kilifa nga rek jaar nga ci te jàpp naa ne ñu baax ñëpp tey ci réew mi jaar nañ ci daara ko bu leen ko dee nettali fi ne nii sax du leen def dara. dañ ciy fier dañ ciy fier man man naa ne bokk na ci ñi ma gën a bëgg sama àdduna tey ki ma daan def loolu mooy mooy ki ma daan jàngal. du man rek ña ma fa bokkaloo ñëpp amu ci kenn koo xamante ni bi tey daaw daaw nekk di la dóor dóor yu metti mooy danga daan war a jàng lañ lay jox mokkaloo ko ñu dóor la ngir door yooyu dana tax nga bàyyi xel dóor yi ba tax na liñ lay jàngal da nga ci def sa xel ba lo dugaloon sa xel loolu jàng jàng sa sa dors mooy sa sa sa sa sa sa sa mbind mi loolu loolu mooy nekk sa priorité loolu war na léegi yëpp façon pédagogie la boo xamante ni noonu noonu noonu lañu ko daan def pour pour tey nit ki mën a nekk tey li mu ëllëg mu war a nekk nit koo xamante ni bi tey exemple lay nekk boobu tey musuñu man de xamuguma mu koo xamante ni gis naa man ci kilifa yu mag ci ci ci ci ci yoon wi gis naa ci ñoo xamante ni bi jéng nañ te tey ji ñooñe ca ca fañ bokk exemple lañ ci kon nag euh, lu baax la la ci ci daara loo xamante ni bi xëy na nag jamono nag dafa sensé dafa sensé temps bi adduna soppeeku waaye ba tax na daal euh, të ak të moom du soppeeku gone yi daan të ba léegi ñu ngi të euh, li ci des nag mooy benn euh, da ngay da ngay da ngay da ngay fexe maanaam bàyyi sa doom mu mu mu mu muñ coone yi ak mettit yi ëllëg mu gis ay résultats yi gis njariñ la waaye nga bàyyi ko ci la ko neex ëllëg mettit yëpp yow danga yaa ngi moom yéen koy bokk loolu waral nag ñu daan sonn ci xale bi mu parce que xale bu dafa am xale yoo xam te ni seenu dëgër bopp ak seenu jubadi ci seen ndaw rek nga koy nga lay siiñ yi siiñ yi seenu ndaw ci lay tàmbali léegi nag yooyu mooy tax nag kilifa yi dañuy teel a xam loo rawate ñi nga xam te ne ñooy ay jàngalkat xam ne kii kat buñ ci taxawut ëllëg dana dana dana sonal ay waajuram dana sonal aw askanam wala dana sonal am réew ñu fexe nag te loola la tax defoo ba nga xam ne moo nekk ci moom ñu fexe semp ko ci moom balaa koy màggale looloo war lañ kuñ ci mës a mm, jéng te di la dóor pour nga mokkal boo mokkalee rek ëllëg ci ña foo mën a bokk ak mën a foo foo foo foo mën a nekk ci ñay ñay gën ngay bokk waaye nag kuñ nga xamante ni bii doon na la bëgg a jaarale ci yoon woowu wala say waajur lànk ko ëllëg waajur yi au compte waajur yi tey ñooñu seen doom jooju ñu lànkaloon loolu tey moo leen di moo leen di jooyloo guddeeg bëccëg loolu daal mooy stratégie bi euh, mu doon lu am solo ci wàllu euh, daara ak tamit ko fa bëgg a nekk noo fay nekkee euh, léegi loolu noonu état daf ko war a cautionner position am parce que coow li gis nga bi mu amee na nañ waa ji libéré ko dóor ko sursis mais est-ce que dafa doon loo xam ne état daf ci war a ànd ak sëriñ daara yi ne nañuy doxalee ñi nga xam ne noonu lañ bëggee sëriñ si di doxalee wala dañ leen war a wutal beneen stratégie pour yar wala boog pour téye xale ba doon dawate waaw ah, xam nga Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla suñu borom bàyyi dafa am am solo lu mu waxoon keroog mu ne danañ ñu ngi waxtaan te danañ fexe xool nu ñuy waxtaanee parce que it Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ kon war nañ lu ñuy def ci loo ne moo ñu tënk ci suñuy sart muy constitution bi ñu boole ci kilifa diine yi. di ci jéem a xool am na ci certaines choses yoo xam ne dañ dañ dañ caa war di sukkandiku ci ci ci ko dugal ci constitution bi ci ay atte yoo xam ne atte yi lislaam la parce que nag mun mënuñoo nekk lu dul ay jullit tey gëm nañ ne war nañoo mën a tënku ci ci ponki lislaam war nañoo tënk ci ci ci bëgg bëggul lan lan mooy bëggu lislaam ban nañoo toog ci leen mooy doxinu doxinu lislaam léegi nag yooyu bu fekkee nag toujours nag état bi ñu ngi defal seen i consulté loolu yëpp duñ ci consulté kilifa yi diine yi nga xamante ne bi tey pouvoir bi ñoom ñoo ko yore pouvoir spiritu spiritualité bi dañoo xam ne temporel ak spiritualité bi ñoom ñoo ko amee loolu dana baax ba yëpp ñu déggoo ci affaire jëng yi ñu waxtaan ci ne ci defe ni doxe doxe ni daara ji nañ ci doxe ni jàngam alxuraan nañ ci defe ni yelwaan mi nañ jekki-jekki rek di attewoo lu am parce que tubaab bu mu xamul jëng te ñun suñuy suñuy suñuy sart parce que daanaka sart ay luwaay tubaab la ñuy yore parce que daanaka tubaab yi seen nañuy doxee seen réew yi parce que daanaka copier bi lañ yor di ko doxe fi te ils sont am nañ différence bu bari parce que ñoom la la majorité ils sont pas des musulmans ñun nag ñun kat la majorité bi lu ñuy dox lu suñu constitution bi nga xam ne ci la ñuy tënk suñuy sarti réew ñu ciy consulter ñi nga xamante ne bii ay nit yi diine lan ba yu ci bëree bëri yoo xamante ne bii réeroo dootu ci yu ci bëri mu am maanaam yoo xamante ne bii mu ak réeroo dootu ci am ñu xam ne ñu ñëpp jàngalekat bi jàngale alxuraan xam ne kat léegi condition yii ci la war a mën a sukkandiku yore daaram condition yi ci la war a mën a nekkee ak ay dongam yooyu nag tànk kumpa googu mi ngi ci problème yi du du fi ñàkk teyit ñoom ñi nga xamante ne bii tey ñoo ñoom jàpp Moustapha sëñ Moustapha Guèye tout n'est-ce pas koo xam ne xamoon nañ ne daara ñoom bu fekkee xanaa état état amul lu lu koy ump ci aw askanam ay renseignement dañu koy am xam nañ ne naka jekk ay jéng mi ngi am ci daara xale yi ñu ngi leen di jéng xale yi ñu ngi jàng mokk ñu di leen dóor loolu moom naka jekk xam nañ ko waaye le fait que ñu ñu jekki-jekki réussir nii rek peut-être que liñ ci bëggoon am nañ ko li tubaab de tapage médiatique bi am nañ ko parce que tax na ba benn sëñ bu jéngoon ab donga da kuy jéngati ab donga da ko xalaat malheureusement malheureusement te loolu du du lu baax ci sama sama gis-gis donc looloo tax daal euh, ñu ñu bëgg daal ñu nu mu gën a gaawee ñu fexe defaat lu ñuy wax naan peut-être que mën nañu organiser référendum beneen wala ñu xool nu ñuy jëlee ci yenn yi nga xamante ne bii kilifa dini yëpp daje nañ ci comme ni mu Cheikh Mamadou mu taax woo ñëpp ñëw daje ñu xool ci li ñuy tënku jël ko dem jox ko état bi ñu dugal ko ci constitution bi jàmm na ñooy. alors euh, mu doon lu am solo mais euh, xam nga jamono dafay dox euh, te tamit actualité nit ñi suivre nañ ko ba xam ci mais éducation tamit ak méthode am bi ngay xam ne moom nga yore ba yow ce que sëriñ daara bi message bi nga ko war a jox mooy am na contrôle ci dongaam yi am na maîtrise ci dongam mooy la main mise la main mise ci xam ne moom mooy dongaam yi ba nga xamante ne ñoom dootuñu mën a rëccati wala book naka la war a mën a comporter woo ak ñoom. ndax dafa war am benn communion seen biir wala dafa am fu ñuy yem ndongo bi dafa am fu muy yem sëriñ bi am fu mu ko yemale. waaw xam nga euh, méthode daara alxuraan contrôle bi à cent pour cent bi mënu ko am ci dongo bi peut-être que dana ci am ay soixante dix wala quatre parce que par exemple xam nga léegi bu fekkee daare moderne yi moom lépp dañ koy bind teg ci mais bokkut ak par rapport ñun suñu daara yi nga xamante bi ci lañ nga xam ne da nekk daara jox presque ay dong yoo xam ne baanaam kenn ku ci nekk sëñ bi bala laa xam rek balaa xam sa tur dëgg-dëgg rek parce que mën nga fa yàgg waaye teewu nag loolu yëpp nag lu euh, tee waxtu bi mu war a jàngale dana jàngale waxtu wi xale yi war noppalu danañ noppalu waxtu wi ñu war a dem yelwaani danañ yelwaani te it lu ci laal ab dong it sëñ bi dana dana ci am ay information lenn daal man laa laa ci loo xam ne dama bëgg ñu moom lu mu gën a gaawee parce que li tubaab bi exploitation de les de les enfants mi ngi am des enfants mi ngi am ndax fi ne boo xoolee fu mel ne ndakaaru gis ngeen ne côté yee dëkk muy côté Almadies vingt quatre heures sur vingt quatre waxtu woo fa demee quatre heures de matin sax da nga dayee ñu di la yalwaanaloo kon nga xam ne ñooñu dañuy mbubboo daar waaye du daal parce que daf ci am ñoo xam dañuy exploiter xale yi dawoon ne ay dongalan te ñoom jànguñu dara dañ leen fi indi uniquement rek pour di leen yalwaanaloo ñuy indi ñuy encaisser loolu nag état bi daf ci war a jog donte état bi eh, jéem na ay effort fu demee jóg bàyyiwaat bu mu yëkkatee jaay may loolu moo gën a danger sax affaire jëng yi ñu wax parce que jëng yi koy def mooy nekk nekk ca daara ñu ñu koy gis ñu jégg ko muy toog di jàng ñu xam ne kii ab donga leen ñu jàng waaye ñoo xam dañuy xale yi mu leer ko ñii dañ leen koy defloo ci far la force di leen ko force ñu koy def ba tey jii ñëpp di ci teg seen bët te te ci loolu dafa ñaaw kon nag loolu moom waxuma la état waaye kilifa diine yi ak ñi nga xam te bi ñu ñoo ŋànk daar yi ñoo ñoom ñoo ci war a jóg te gis nañ ne lool moom ñëpp xam nañ ne am na am na ñoo gis ne ñi ngi xëy na ay dongaleen di yor seen di yalwaan topp ci boîte de nuit topp ci restaurant yi topp ci même baar yi dañ ciy taxaw di di di yalwaan te mu leer ko ni ñii da xam ne ñii ñi ngi mbuboo dong waaye duñ daara kenn jàngalu leen dara loolu léegi nag waaye ñi ñi leen ñi leen ñiy exploité loolu dañoo mbuboo daara ba tax na kenn du leen wax dara danaan ay ay dong moo tax loolu nag plus rapidement possible moom état bi reculer jëmaat reculer te loolu nag du yoon état bi da cee war a jëf ay engagement yu ferme yoo xamante ne bi dimbali xale yi nga xam ay innocent la parce que ñu ngi leen di exploiter te sëñuñ koo bañ ñi jël ñi di leen wutloo xaalis sëñuñ koo bañ ba pare ñëpp di seetaan kon nag loolu moom état bi dañ ci waaye kilifa diine yi ak ñi nga xam te ñoo yor ay daara di jàngale ñoom it ñi nga xam ne war nañoo mën a fexe di seetal seen dar di protéger seen seen seen corps ba kenn du du gis mukk lu leen di gàkkale ba di leen ci xeebe wa ba wala ñu ciy jaar ba di leen wax loo xam te waru leen ko wax di leen xoole bët boo xamante ni bokkut ak bi nga xam ne dëgg dëgg daara loo loolu mooy mooy mooy aw aw doxinam pourtant nag euh, euh, président de la république euh, ci message bi nga xam ne joxe na ko ci 31 décembre wax na ci ni maanaam bi muy dajeek journaliste yi maanaam priorité am bokk na ci xale yi nga xam ne moom ñoom ñooy taxawal ci mbedd mi. laar yu ni mu ko méttee euh, bëgg na ci am accompagnement mais loolu du est-ce que amul ñoo ko ci xam ñoo ko ci war a dimbale muy les parents d'abord avant moom. xam nga man jàpp naa ne lu mel noonu faw mu dugal ci kilifa diine yi faw mu digal fi ne par exemple man man sama bopp rek moo président woowoon tey euh, laaj ma ci xalaat mën naa ko ko tegal yoon woo xamante ne bii. automatiquement mën nañoo daal di régler problème bi te du am benn bruit te tey dana tegu ci aw yoon kon c'est pas compliqué mais nag bu fekkente ni bi yow yaa ngi jéem a saafara loo xam ne bi xamoo ca dara foo foo laalee pression bi jël ñi nga xamante ni bii daara taxul leen a jóg inter seen seen poste leen tax a jóg ñu yëkkati rëyu la ñu boo ci ci rajo yi di wax nga ragal reculer loolu moom loo jëm jëm jëm di demee il faut que mu jaar mu jaar ko atul bu yotu mi di wax mbir boo cee kër boo ciy dugg da jaar ci buntu ba da xool ñi mu conseillé ñi ci am expérience ñi ci am xam-xam nga woo leen dugal leen ci ñu indi seen xalaat ñu ñu teg ko te bu ñu ko tegee rek mën nañ ko doxal donc tant que président nag deful loolu parce que lii depuis président Abdoulaye Wade loolu defe naa ci jamonoy premier ministre Souleymane Ndiaye ñaa ci lañ defaloon décret bi ci affaire xale yi à la fin de l'heure yi ci ne ci bi jéemaan nañ ko ginnaaw ci nguuru Macky Sall ba Mariama Sarr bi bu nekkee gis nga ko jéemaan nañ ko mais sottiwut mais il faut que ñu waxtaan te ñu ci war a waxtaan il faut ñu def ay consultation ci kilifa yi nga xamante ni seen spécialisé ci lu mel noonu la ngir problème bi ñu mën koo régler une bonne fois pour donc loolu rek mooy voilà mooy solution bi nga xamante ni mooy meilleure solution. ci parents yi tamit amuñu ci responsable. parents yi parents yi am euh, xam nga xam nga aussi Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne bari na ñoo xam ne ñu ngi yóbbu seen daara seen i doom ci daara ji ma wax la ko tey bari na ñuy yóbbu seen doom ci daara te fekk na xëy na sax bëgguñ leen faa yóbbu waaye mënuñ leen a yor seen i kër xamuñ fuñ leen yóbbu fan leen fu dugg ñu jël ko rek sànnil ko sëriñ ba joxuñu ko dund joxuñu ko dara lijjantiwuñ ko bu ko defee bi nag mu téye ko léegi nag bu fekkee sëriñ bu ragal yàlla dana ci jéem a jaamu yàlla defi effort fexe yor xale bi jëm koo jàngal waaye bu dul ñi nga xamante ni bii ragal nañ yàlla te te addoo rek tax laa ñu jóg loolu war jël xale yi di leen exploité di leen exploité di leen yelwaan loo nga xam tey bu dee mën nañoo toog presque une semaine bi sax duñ jàng waaye chaque jour ñu ci mbedd mi parce que waajur yi contrôle leen xool parce que sëriñ bi day dem ba ne kii waajuram ko ngir mu jàng doomam ji mu yóbbu ko mu jàng alxuraan waaye nag amul munu yor munu koo dundal mu ko ci sëriñ ba lu ci bare bari problème kaa boobu dafa te yooyu yëpp nag il faut ñu def ci ay consultation waxtaan def ci ay baax def ci ay investigation xool problème bi lan la ak ak naka lañ koy war a mën a régler te loolu lay tax mu yomb rek mooy nañ xool ñi nga xam ne am nañ ci expérience am nañ ci xam-xam muy problème boo xam te ne bii c'est pas compliqué lu yomb la ci ñu régler ko. ñu ne euh, dund ñu ne dund gi moom moo metti léegi Sénégal euh, fa nekk ci pays yi gën a ndóol euh, ci Afrique. Euh, ba ci àdduna bi euh, président de la république euh, maanaam mi ngi ci mais dafa ci wéet wax na ko ne maanaam dafa bëgg ñëpp wax na fi accélérer cadence wax na fi Sénégal émergent wax na fi fast track léegi li nga xam ne moom la war a xool li war a jëmale réew mi kanam parce que selon yéen ñu ci bëri dañoo jàpp ne moom ba léegi affaire dafa gën a métti tey maanaam orientation bi wala débat bi fan war a situé wul exactement. waaw xam nga dama ci doon waxtaan ak barki leen benn kilifa ma ne ko Sénégal euh, malheureusement mais sax xaw ma dama xaw malheureusement xaw ma heureusement bu ma ci mën a wax ma ne ko Sénégal ni ñuy produire dafa bari Sénégal ni ñuy dafa dafa dafa parce que yow boo Sénégal bu yàggu rek ñu naan fi 9 millions ak 10 millions léegi ñu ngi ci ñaata 16 millions ci bu gàtt. te day gën di gën di gën di léegi nag doxin woowu état bi système am ak doxinam faw rek mu ànd ak euh, noonu muy muy muy muy muy produire mu ànd ak moom ci ci ci ci ci ci ci côté auto ci secteur am yëpp tant que bu ñu ko deful rek léegi li li doomu aadama yi ni ñuy ni juddoo day dépassé par rapport ak li état bi teg ak seenu doxin da koy raw raw lu bari te ki nga boo xoolee fi ne. xale yi soixante quinze ans yeeg dix sept ans yi ni ñu baree ci dëkk ni ñu baree ci fépp foo tourné ci Sénégal donc nag loolu li faw day day laaj day laaj am njàngat day laaj am njàngat ñu xool ne Sénégal ni muy multiplier population bi at mu gën a dem rek day gën di yokk day dem ba nu mu doon par exemple bu doon dox dix bu déwénee quarante lay dox bu bu bu année par ba ca toppaat noonu lay noonu lay noonu lay léegi nag mboolem système boo xamante ne bi lu concerné euh, population bi il faut muy doxee noonu. rythme boobu ànd ak ànd ak moom looloo waral tey ndool gi ndool gi ndool gi bari fi ndax tey jii ndool gi ku ne xam ne Sénégal ah, nit ñi ah, nit ñi sonn nañ am na nit ñoo xamante ni bii ñu ngi faatu te gannaaw dogalu bi yàlla feebar ñàkk faju amuñ lu ñu fajoo amuñ lu ñu jëndee ordonnance am na ci ñoo xamante ni bii tey ñu ngi faatu xam nga lu leen rey mooy ñàkk dund dund bu baax am na ci ñoo xamante ni bii duñ añ buñ añee dund reer am na xam ne daanaka gis borom kër daanaka xam lu ñuy dund fi ne yelwaan bu ñu xëyee topp kër yi lu ñu leen dajal ñu dem bu demee teg seen njaboot ci côté secteur ndindi bi loolu am na fii am na ci ñoo ne bu ñu ñëw fii di sàkku ndimbal seen si la ñuy yor lu fi jëlee dem dugg marché buñ ko fi buñ fi jëloo dara ñibbi noonu toog ñu ngi ci condition yu difficile donc loola war a nag état bi gën a xam loolu donte bu fekkee xam ne koy nag gën a xam loolu bàyyi xel ci ne li gën a am solo mooy nit ki ñetti ñaari ñetti yi moom mooy mooy mooy mooy mooy base bi xam ne dafa war a baax ba noppi lu ciy togg doo ci teg mooy nit ki bu feebaree na faju nay dund dund gu baax bu na jàng-jàng bu baax yii nag état moom seen seen budget yi li muy bari bari bari bari yii fii lañ war fii lañ ko war a gën a jamale waaw waaw te te waaw faju mi muy dund bi faju mi ak njàng mi te yooyu yëpp bu ci nekk xam ne dafa am jafe fii malheureusement dama leen waxoon ne ne dañoo waroon a indi benn loi boo xamante ni bii képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci état sa doom warut a génn bitim rewu jàngi képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci état sa doom warut a faju ji clinique parce que bu fekkente ni bii parce que bu loolu amoon rek njàng mi dana baax mais fi ne tey jii baadoole rek ñooy ne ci école yi ne ci université yi di souffrir dañuy am ñoo ne dañuy jàng ma yàlla xam ne doo mooy ñàkk mooy dana tax seen njàng yàqu ñi ngi fi gis ñuy ay kilifa te état bi ñu muy niti état bi koo ci gis doomam mi ngi ci bitim réew jàngi buñ feebaree ci clinique yi lañ faj wala ñu dem bitim réew faju ji léegi nag baadoole yi ñoom ñooy continuer di su fekk même rythme boobu doomi ñi nga xam ñoo ne ci nguur gi ku ci sa doom jàngi ba am diplôme boo ñëwee fasaa am liggéey doomi baadoole yi dañuy jàng ba am diplôme di sommet di wër di jaay café ka café Touba ci àll bi yooyu ñu teg nañ léegi nag li ñoo naan kumba am ndey ak kumba am amul ndey faw rek faw rek te loolu nag système la boo xam ne dafa yàgg dafa yàgg dafa système la boo xam doxin dafa yàgg depuis ci depuis ci Abdou parce que mën naa ne ba tey ba Senghor ba Abdou Diouf donc ba ba ci ba ci Macky Sall donc nag loolu il faut que ñu ñu ñu te ñooñu ku ci falu baadoole yi ñoo lay fal kon nag il faut que ñoom ñu ñu bàyyi xel loolu parce que loolu ku kuy dund Sénégal xam nga ne moom mardi tey ku feebar mardi Italie waaw boo booy jàng te amoo ay moyens sa njàng doo arrivé soo soo amul dund bu baax doo dund loo dund. léegi est-ce que du loolu moom moo waraloon parce que fan yi déggoon naa ni euh, seeti nga euh, euh, président Abdoulaye Wade sunu maam. Euh, est-ce que du loolu moom moo taxoon nga seeti ko waxtaan ak moom ci réew mi fi mu toll wala book mu orienté Macky Sall parce que ñoom ñaar juboo nan euh, ba ci ak ñi dégg ne jubo bi sax maanaam ab diir la woon rek euh, noo ko jàngatee ak ak loo woon. waaw par exemple seeti woon ngir damaa moom kóllëre gu yàgg te muy koo xam ne bi man maa ngi ko bëgg parce que xam naa dafa bëgg Serigne Touba maa ngi ko fonk parce que xam naa liggéeyal na Sénégal waaye na liggéeyal na Serigne tubaa ci ci moment bi nga xam moom la nekk. loolu kese moo taxoon ma seeti ko gis na it yàlla defal na ko muy borom xel mu rafet yàlla defal na ko it muy borom xol bu rafet loolu nag a waral te te ma jaxasoo woon ak moom démb tey door dik moo waral léeg-léeg moo toogee rek sama xel nekk ci moom damay dem nemmiku ko duñ fa sax tudd nag politique man ak moom waaye dañuy dem toog waxtaan nemmiku tu waxtaan moom waxtaan ci àdduna waxtaan ci actualité moo fa jógee moo fa moo fa jógee jógee waaye nag waaye nag c'est profité bien l'occasion pour pour cette pour wax ne. Euh, maa ngi rappelé bu baax président Macky Sall ci comme digoon na président Ablaye Wade ne dana ko seeti na dem seet ko parce que sëriñ bi bi nga xamante ne bii jubale na leen te sëriñ bi di seen kilifa ñoom ñaar ñëpp ndax président Macky Sall ak man Macky Sall bi muy jébbalu ci alaaj Baara maa ngi maa moom ñoo àndoon kon mën naa koo seedal ak Mouride tam alaaj Ablaye Wade kenn dootu danteel ak Mouride tam kon nag bi leen Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñaar ñëpp digal leen ñu daal def jëfe ñëpp. moom it président def effort ndax yóbbu na président ci otoom ba ci këram wëlbatiku woo na ko ca palais ba retour bi nag moom la ñu xaar wax président Macky Sall pour nu mu gën a gaayoo daal ñu ngi koy ñaan mu dem seeti président Abdoulaye comme ni mu ko diggee woon tey it jubóo gi mu accéléré ko ba ñu gis ci ay résultats yoo xam te ni Sénégal yëpp dana xam ne jubo gi kat Euh, résultat yaa ngi nii jafe yi nga xamante ni digal yi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha joxoon na ko joxoon na leen ko rawatina moom président Macky Sall it mu mu jafe ko ba Sénégal yëpp xam ne jafe na ko ndax euh, diggante di wax naan di Abdoulaye président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall diggante doom ak baay la ndax ñëpp xam na ne Macky Sall gannaaw yàlla lu mu am Abdoulaye Wade bokk na ci li tax mu am ko te ñëpp xam na ne jiitaloon na ko ci ci kanam ñëpp. mais mais palais xam nga ne rëy na kun fa recevoir euh, gunge la ba sa kër tamit loolu effort la mais euh, jubóo bi ñi ne nan dañuy préparer maanaam euh, li nga xam ne moom moo fi war a am gannaaw ñaareel mandat moom nag nangu wax ba léegi ci ñetteelu mandat mais moom mooy defar peut-être terrain wu Karim Wade pour mën a ñëw continuer ci réew mi ndax loolu bokkul ci li nga xam ne tamit moom moo tax ñi war a jubóo walla tamit waxtaanu leen ci pour déggoon see pour ñu xam ci maanaam ñoom ñaar fu ñu toll. waaw waaw man man président Macky Sall li ma li ma ko doon xalaatal mooy ak lu mën a xew Karim di na ko jéggal am na ay pexe yu mën a def am ni si yàlla lu mu ci mën a doon daal waaye na ko jéggal ndax lu mën a xewit euh, bàyyam ji na ko loo xamante ni bi gëw ma ne dana ko mën a fay ci àddunaam kon nag na na fexe ndax jàmm moo dàq lépp Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jàmm gisul ko dàq àdduna gisulu ko dàq àlaaxira te su boobu moo man sama bopp wala yooyaaxe laaw naa si maakasu matrak ala sahra min daabati wala man man sama bopp man mi leen biir doon fayantoo ak yéen du ma fi bàyyi ci kaw suuf te nit ku baax da ngay jéggale di jëlale rawatina ci kilifa rawatina ci koo xamante ni bii yow kii lu ne defal na la ko te man man sama boobu xamoon naa diggante président Macky Sall ak président euh, ak ak man jàpp gëm naa ne bokk na ci li tax président Macky Sall doon premier bokk na ci li tax xam nga kon boole woon nañ leen. boole na leen kon nag amul lu lu tax lu lu ni bi boole gi lu ko raw mën mënta amaat lu ñuy wax naan réeroo amut ñàkk waxtaan am jàpp naa ne Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fa sunu ba na ubbi na ubbi na bunt ci bi ci des mooy président Macky Sall moom man jàpp naa ne xalaatu def troisième mandat pour xalaatu ko parce que dañu ne nag noonu ma ko waxee rek tey manees na ko nugul ci wax parce que waxoon na ne du ko def jeex na te waxam kàddu yam yooyu rek nañ ci sukkandiku di xaar nit ñi nag xam nga yaakaar naa ak njortu naa ne moom loolu loolu moom du du wax. te nit ñi cooy li muy bari bari yaakaar naa njort naa rek la ñuy wax waaye li nga xam ne mi ngi su kanam te lu mu yàgg-yàgg bu soobee yàlla dana ñëw jëru yàkkamti nañ xaar li mu mujjee tontu moom mooy dafa su waxoon ne maanaam euh, du am euh, troisième euh, mandat kon ay ministre am du liggéey loolu ànd nga ceeg moom Euh, ànduma ci moom ci boobu ndax xam na ne ministre bu mu teg ministre de la république la koo teg te liggéeyoo da nga koy teggi teg feneen am na ñoo xamante ne bii ñu ngi fi te ministre yi xam-xam am am na ñoo xamante ne bii am ñoo leen ab xam-xam boobu te doonu faluñu leen dara kon loolu gëmuma ko mais ci côté politique nag euh, manoon logique na mooy euh, ñëpp xam na ne donte jàpp naa ne la majorité xam na ne du demaat troisième mandat. peut-être que nag faaw nag ñu ñu ñu ñu bàyyi ci coow yi nii rek rëg-rëg ji am coow ku nekk di xel yàqu yàq mais man daal jàpp naa ne waxam ju njëkk jooju mu waxoon ne du ma du ko def man ca ca ca loolu laay sukkandiku te it jàpp naa ne xalaatu ko parce que gëm naa ne bu ko jëmee du sotti bu ko jëmee moom du sotti te bu ko jëmee man jàpp naa ne ñi ànd ak moom ci boppam ñoo ko njëkk wan ginnaaw su ne lan la war a wattandiku daal pour pour maanaam bañ a dugg ci maanaam euh, ay jafe-jafe dëgg-dëgg waaw lu war a wattandiku daal mooy président de la république li ma koy conseil mooy na gën a suuxat démocrate Sénégal affaire yi nga xamante ne bii toujours Sénégal coow yi coow ay affaire mars ak ay manifestation yooyu yooyu nañ ko Sénégal war nañoo dépassé fu ñu koy interdire yooyu président man su ma ko doon conseil li ma conseil mooy mayel nit ñi bu ñëwee bu la neexee ñëw ba ci giri palais bi bu la neex sax nga wàcc ndaa nga sol sa xaftaan ubbi ne leen kaay leen lan mooy seen yitte waxtaan ak ñoom parce que it nag euh, euh, lu mu yàgg-yàgg daf fiy jógee te nit da ngaa war toujours ngay sóoraale sa suba ngay suural su suba ngir ëllëg boo fi jógee nga bàyyi fu way woo xamante ni bii say say say say jegeñaale say sopp danañ ko bëgg a dégg te comme moom yàlla dogal na euh, euh, bi mu fi bi muy jël réew mi wax dëgg yàlla ku Ablaye Wade moom lu ko waaye waxal xam ne nitu démocrate la woon lu ko waaye xam ne démocrate Sénégal fekk am na fu ko fekk am na fu mu yóbbu fu kawe kon donc loolu président Macky Sall fi ko Ablaye Wade bàyyi da ko war a yokk waaye bu mu ko bu mu ko woon parce que Sénégal it li tubaab di wax esprit dépassement am nañ ko dekk di manifester wu di yàq ak yooyu romb nañ ko foo gisee fitna am rek mooy manifestation bu ñu war def ñu aaye leen ko waaye wax boo boo xoolee ba ba ba ba tey mosoo gis mukk manifestation wala marche boo xam ne autorisé nañ ko fitna am ca. kon nag ñoom bu ñu bëggee dem palais rek lu ko doon conseil bu ñu dem palais sax bu la neexee ñëw leen ci buntu palais bi ngeen manifeste états dem naa fa demati fa toujours am na ñoo xam ne 24 sur 24 ña dem teg kon nag France gis nga ko toujours boo foo leen fekk ñi ngay manifester boole ko boo fépp foo gis répétition am ci ci manifestation rek parce que interdit nañ ko alors que dañoo Sénégal fi nii war nañoo dépasser ay manifestation yu interdit Sénégal yi moom xam nañ ne calendrier cala Sénégal yi xam nañ ne calendrier républicain Sénégal yëpp respecté nañ ko waaye nag nit ki lay tax. bu amee lu ko naqari nit ku faaw mu am lu ko naqari waaw nañ ko bàyyi la ko naqari mu wax ko nam ko neexee nga bàyyi ko mu ñibbi seen kër ko yomb Serigne Djily Mbacké Abdoul Fatah moom la ñu dalal ci seen émission découverte euh, nga xam ne nag maanaam ñi ngi war a tamit dëkkmal euh, benn bés bu am solo euh, muy bés boo xam ne ñu ngi koy amal foofu nañ ca CICES bés boobu noonu sëñ bi lan la waaw aussi di bis boobu mooy bis bu buñ tuddee su na fàttaliku Serigne Fall xam nga ca 2004 le 16 novembre 2004 dama am mbedd bu ma tuddee woon bu ma jëloon fële ca Parcelles Assainies à l'époque Mbaye Ndiaye boobu nga xam ne mooy ministre d'État moo nekkoon maire parcelle ma dem demandé ko ko ne damaa bëgg fi ñu tuddee ko Cheikh Modou Fadal moo it mu dem demandé ko constitution say conseil ñoom ñu daal di koy woote def délibération wutal ko kayitu juddu ne ma daal bis tey tudde nañ ko Sëñ Fallou ma daal di koy woote inauguré ko woo waa kër sëñ Tuubaa yi ñu bari ñëw a njabootu sëñ Fall rawatina ñu ñëw ñu inauguré mbedd sëñ Fall boobu le 16 novembre 2004 mu gën a siiw ci angle sëñ Fall ci par Ndakaar moom ku fay am murid rek xam nga angle sëñ Fall parcelle léegi nag depuis loolu nag at mu jot dañ koy màggal dañ koy màggal bi ñu ko fa defee lu man ñeenti fa ñeenti at mu xaw a xat foofu ñu daal di koy yóbbu foire internationale de Dakar ren defe naa bu ma jur mooy neuvième édition ñu koy ñu koy def si ses donc at mu jot ñu tuddee ko surne fàttali ko sëñ Fallou liñ ci jublu it mooy xam nañ ne sëñ Fallou nit ñi dañ ko bëgg te xam nañ ne li ñuy wax naan nit ki boo ko bëggee war nga ko xam ndax xam nga dana tax nga nga nga mën ko roy te roy ga dana dana la dimbali loolu moo waral nag ñu ñu ñu tuddee ko surne fàttali ko sëñ Fallou at mu jot ñu ñuy woo ay borom xam-xam ñuy ñëw ñu ñu ñu ñu ñu li tubaab bi wax ñu suivre ay actualité di fa waxtaan thème yi daal actualité lañ nekk waaye rawat thème yi it aussi day jëm ci rawatina ci jeunesse bi ndax ñun boo xoolee njaboot gi li ñu topp daanaka ay ndaw lan ak ay jigéen léegi nag toujours ñuy xool ñun leen di orienté ci jëm jëm ju baax ci ci yoon bu baax ak ni ñuy ni ñuy ni ñuy sàkkoo lu baax ngir ñu am ñu mën a noppal ëllëg tëggu ko ci ab yaayu sëñ Tuubaa ne fukk lu man baa dara waxtu sixar ilal xudaa istiraax wa tarkib képp koo xam ne gaayoo ngi si waxtu ndaw ci njub da nga noppalu sa waxtu mag te xam nañ ne am réew mënuloo ko defar te defaroo ndaw yi ndaw yi mënuloo ne defar mu ko te yu baax jikko yu rafet yoo xam ne ëllëg danañ mën nekk ñu mën a tabax réew mi ngi mel na ngay defar am réew te defaroo ndaw yi defaroo seen jikko mooy mel ne da ngay tabax tabax boo xamante ne amul fondement lu mu gudd gudd day day mujj ci màbb la jom léegi nag ñun suñu suñu mission ci ci ci suñu génération ci ci ndaw yi mooy nag di leen orienté di leen xamal lan mooy lu baax di leen xamal leen jéem leen a jub leen xamal jéem leen sàkku xam di leen xamal di leen nit ñu nekk ay royukaay di nekk ay nit yu exemple nekk leen nit ñoo xam nit ñu ay am jom am ngeen nekk leen nit ñoo xam nit ñu am ay valeur ngeen du am li ngeen di rus du am li ngeen li ngeen jom ndax si di boo xool fi ne jamono ji léegi dafa mel ne li ñuy wax valeur li ñuy wax crise de valeur dañ ko am fi mu ne léegi nag euh, li ñuy wax mag ñi moom c'est ñuy fexe mag ñi nga xam ndaw yi nga xam te ñoo nekk ay magi réew mi ëllëg ñuy fexe ba am ñu jikko yoo xamante ni ëllëg daañu nekk ay roykaay ci fu waay mën a ne da nga nekk roykaay ca la nga nekk. loolu daal mooy sunu objectif moo tax surne bi toujours ñu ñu. ñoo ko nar teewee ci ak tamit euh, buñ fa dee waxtaan euh, ci waxtaan ci mi ngi wax nga ko ci mu ngi jëm ci ndaw ñi orienté leen mais ki ko war a waxtaanee ñu ko war a teewee. waaw waxtaan yu kër yu bari danañ danañ danañ danañ fa ne mën naa cee tënkee Cheikh Cheikh Mouhamadou Rafaay moom Cheikh Amadou Fadal. dana fa def waxtaan gànn mesare mi dana fa def waxtaan ak yeneen i borom xam-xam yoo xamante ni danañ fa ñëw état bi it euh, maa ngi sant profité ci occasion di remercier président Macky Sall parce que at mu jotit dana fa yebal délégation lu mel ni ñaari ministre wala ministre danañ ñëw teewe ko ñu ànd ko kon nag euh, bis la boo xamante ni daal bis bu officiel ci Ndakaar parce que su ne euh, fàttaliku Sëñ Fall moom defe naa ne parce que ren mooy 16e édition ñu koy def fukki at ak juróom jàpp naa ne taalibe yi murid yi nga xamante ne bi ñoo ne Ndakaar moom defe naa ne ñëpp xam nañ bis bi moo tax bis la boo xam ne bis bu officiel la boo xam ne dana bari yoo xam ne di yoo xamante ne bi ay njëriñ lay doon ci ci ci Sénégal yëpp waaye rawatina ci jullit waaye rawatina ne ci ci ci ci taalibe yi jot nga cee gisee kon président ba waxtaan ceeg moom de président Macky Sall gërëm ci wax waaye dana dana am incha ci jokkoo danañ bis ba parce que at mu jotit wax dëgg yàlla da doo xam ndax comme su sama jaxasoo nañ depuis bu yàgg waaw depuis bu yàgg donc tey booba ba tey nag amul bis bu mas a ñëw ba ba te te te teewul yónni fa ay ko yu fa teewal. waaw donc kon kon ngi pour occasion bi sax di ko fàttali bis. ndaw yi ndaw nga xam ne ñoom ngeen ko jagleel souvent parce que wax nga ko nan lañ fa war a dikkee ak buñ fa ñëwee tamit ba ñibbi luñ fa war a jàngate waaw xam nga foofu ci Ndakaar dama leen wax man leen daal su ma suñu Sëñ Fallu bi moom damaa bëgg daal ku ñëw daal boo fa ñëwee da ngay jàpp ne yaa ngi Tuubaa parce que lépp li nga xamante ni moom la ñuy bëgg tubaab loolu lañ fay bëgg lépp li nga xam ne moom lañuy bañ tubaay loolu lañ fay bañ man sama slogan man mooy tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi moo tax nday yëpp ñu ngi leen woon ñu ñëw ci ñëw it doolu taalibe rek yaru ànd ak dal ba pare boo ñëwee déglu boo ñëwee déglu gëm nañ ne ku ñëw ndax sëñ Tuubaa dafa wax ci ma xaw laa toojaali sa xëy man sot bi diinan wax lan bul toogaale mukk loo xamante ne bi du la bul dem ci benn barab boo xam ne doo fa doo fa dolli koo diine doo fa dolli ko xel ñu nag dañuy bëgg nag jataay yooyu képp ku fa ñëw sa diine danga nga fa jëlee loo xam dana la dolli dana fa jëlee dana la yokkit sa sa am xel ci ci ni ma a doxee ci sa adduna dañuy jeexalee ko sëñ bi ak fi nga xam ne moom mooy ndindi bi bërki démboo njaay rek tudd na nañ fi agression hmm. euh, bu doy waar mu mel ne insécurité dafa euh, maanaam gën a bëri ci dëkk bi euh, loolu noo ko jàngatee ak li ngeen ngi déggee lan ngeen ci lan ngeen ci dox yéen mën naa ko wooy négligence laa ko mën a wooy parce que xam dafa nekk dëkk boo xam ne dañ koo xaw a euh, sabonteel mën naa ko wax ndax ndax sabonteel gi mooy damaa jàpp ne autorité surtout autorités yi xamuñu dayo ndindi si di maa ngi lay xamal ne ndindi xam nga Touba tout ñëpp xam nañ ne c'est la deuxième capital de l'habitat du Sénégal Touba ginnaaw Dakar moo ci population mais maa ngi lay xamal ne gis nga mboolem dëkk yi nga xamante ni moom la sëñ Touba sanc ginnaaw bu du Touba ak mboolem dëkk yi nga xamante ni moom la Cheikh sëñ Touba yi ak mboolem dëkk yi xam moom la njabootu Sëñ Tuubaa sax ginnaaw Tuubaa Ndindi moo ci ab population Ndindi moo ci ab population kon xam nga dëkk bu dëkk bu rëy la te léegi sec brigade boo fi ne brigade bi fi nekk éléments yi fi nekk bëriwut d'ailleurs man mii sax maama sa maama am na fi benn oto bu ñu am lu ñuy wax double cabinet bi ñu am nii man mi maa demoon seet général bi ci boppam wax ko situation Ndindi ak insécurité bi ak ñi fi nekk niñ manqué ay moyens boobu général Guèye Faye moo fi nekk mu mu ne ma mu ne ma dana fexe ba ba jox ñu oto bi nga xam ne moom la ñu yor nii donc te dëkk bi fi nii man jàpp naa ne war naa am poste police war naa am ay poste police war naa am ay poste brigade yu gendarmerie warut am benn warut am ñaar parce que dëkk bi dafa rëy dafa am ay ginnaaw côté boo côté bu ne ay kilomètres la léegi nag def kati njaaxum yi nga xamante ne bi ñooy dayoo ci dëkk yi ci Sénégal gépp ñu ci bëri fii la ñuy làqatu rawatina ci Touba parce que Touba le moins que am na sécurité bu am par rapport ak bu par rapport ak Ndindi amu ko léegi nag ñoom ñëpp dañ ñëw làqatu si fii parce que xam ne fii ñi fi nekk ngi jéem a def effort looloo rëg-rëg ji bi mu amee bi ma xëyee suba gi laa woo kilifa sandarma gi ba xamal ma ne ma daal moom dana jël nañ ci ay matuwaay def nañ ci ay réunion te da dans ñaari fan da nga gis changement da nga dana ci am démb heureusement que démb tàmbali nañ ko parce que démb def naa am nañ dama ñeenti oto yoo xam ñu ngi indi nañ ngi ñaan daal eh, autorité l'état bi ñu fexe daal dimbali ñu ci post yi ñu yokk ko waaw poste yi ñu yokk tamit li waral insécurité moom mooy am na ñu naan maison clandestin yi euh, ñi nga xam ne maanaam dañuy tabax kër euh, ba pare euh, dem Dakar tëdd fa dénkaane kër gi ñu ci bëri jàpp na ne parce que am na loo xam ne doon koo dégg ñi ñu ci bëri dañu jàpp ne ñu ko moom mooy ñiy dëkkee ci kër yooyu nga xam ne du am contrôle wala boog boroom kër ga du ko toppatoo ci te mois bu nu xëyee yendoog yow guddi gi ñu def li ñuy def yooyu tamit am na ñu ko ñu ko signalé waa xam nga loolu it euh, ab liggéey la boo xamante ne bii am na ci loo xam ne waa dëkk bi ñoo ko ñoo ko seen seen seen la ci ñoom parce que loolu waral même yëf yi bi mu amee jokkoon naa ci kilifa yu bari chef de chef ki nga xam ne mooy jiite dëkk bi it euh, mooy chef de village bi woo naa ko waxtaan ci ak moom léegi nag li ñuy def mooy euh, dañuy fexe tàmbali ndax xam am na ci loo xamante ne bi li ñoo xam mbay sawewu tànk am na loo xamante ne bii fi ne maa wax la benn année doom gis nga ndindi bu njëkk gan gu fi masaa fanaan dañ daan génn ci rajo ne gan feeñ ñëw na ci dëkk bi mais léegi dëkk bi dafa loolu kenn mënatu ko léegi nag ni ñuy def mooy dëkkandoo yi parce que dama ne dama ne chef de village bi il faut que ñu convoqué mboolem si parce que wax nañ ne ndindi mën na mën chef de village am na fi ci dëkk bi 60 kon 60 chef de village mooy 60 quartier ñu convoqué ñëw ku ci nekk xam nga maîtriser nga bi nga yor ñi nga xamante ne bii soupçonné la leen ñoom ñëpp nañ nañ def investigation ci ñoom surveiller leen discrètement ku ci dëng ñu génn la génn la dëkk bi seppi sànni ci àll ba loolu nag mm, rëg-rëg yi am ni tax na ñu jëlaat ci ay matuwaay yoo xam ne yaakaar naa ne insécurité bi moom yaakaar naa bientôt moom dañ koy lu fi amoon la ñuy wax waaye dootu dootu dootu nekk bu soobee yàlla. jërëjëf daanaka mbokk yi sunu waxtaan euh, ñu koy daal di jeexal nag ci kàddu yu dénkaane euh, ma fàttali ne jiili Djily Mbacke Abdou Fatah moom la ñu dalaloon ci seen émission découverte xanaa kàddu yu dénkaane ak tamit euh, naka la ñu war a gën a comporté woo ngir sunu avancement parce que sunu avancement moom mooy tax réew mi avancé. waaw li suñu avancement daal mooy nit ki daal li may conseil ñëpp nag mooy nit da ngay gëm sa bopp waaw da ngay gëm sa bopp dangay gëm sa bopp da war a am jom da ngaa war a am looy rus danga war a am looy jomb da war a gore da war a am mm, ngor goo xamante ni bi daal euh, ak jom joo xamante ni bi daal mm, maanaam fépp foo xamante ni bi war nga fa àgg soo gëmee sa bopp man jàpp naa ne mën nga fa àgg parce que am na ci nit lu muy am am jom tax moo tax mu am ko bari na lu nit di ñàkk ñàkk jom mooy tax mu mu ñàkk ko kon nag maa ngi conseil ñëpp rawatina ci sones bi ñu góorgóorlu ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng nañ jéem a jàng te xam ne ku jàng rek yàlla yàlla mën na laa def nga jariñu ñi nga xamante ne bii ñi ngi jàng te jànguñu moo xam ci ci ci ci ci ci ba benn jàng ñi ngi jàng métier ñu góorgóorlu ci njàng moomu ndax buñ ci góorgóorlu yàlla mën na koo barkeel te bu ko yàlla barkeele da nga li parce que nit ki si nit ki bopp mooy di defal li nga bëgg lépp nga di ko defal sa bopp te bu dépendre ci kenn léegi na loolu la la ci dimbali rek mooy nga am jom nga am jom jom daal ak ngor boo ko amee daanaka mën naa ne mboolem qualité yëpp dana daje ci yow te qualité yëpp bu dajee ci nag jàpp naa ne nit ku bu la yàlla dimbalee foo bëgg ak kon nag maa ngi sant maa ngi sant ñëpp di gërëm mboolem téléspectateur téléspectateur yu Pro 28 di la di la sant yow Sidi ndax yow sama xarit li ñuy wax ami longu dat nga <laughs> kon nag maa ngi leen di rafetlu liggéey bu baax di ñaan suñu boobu yàlla na barkeel seen bi barkeel mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ci liggéey di wax wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi mu nekkoon seen euh, émission découverte ak Serigne Djily Mbacke Abdou Fatah moom la ñu dalaloon euh, ñuy am mbégte bu baax a baax te ngi jéggul tamit ci dérangement bi ndax euh, insisté nañ moom it tamit pour mën ko seq moom waxtaan bi waaye waxtaan nañ mi waxtaan bu am solo maa ngi àndoon nag ci caméra bi Cheikh Bey ci réalisation bi Bekkaay Ndiaye lay doon mbokk yi jërë ngeen jëf dig daje ci yeneen jotaay ci seen émission découverte découverte